bu am 6 ans tey nag ñoo ngi fii ci biir kër gi nga xamante ni fi la xale bi dëkk ñu toog ak ay yi nga xamante ni ñoo di famille am ñu fas yéene ñoo wax xaj bi naka la màttee gone gi ak bi mu ko màtteeg léegi yan jafe-jafe la ci dund ci wàllum hôpital beeg wàllum faj bi waaye du ma def dara rek lu di ko nuyu bu baax moom mi nga xamante ni mooy papaay xale bi mu dikk ak ñu ci li nga xamante ni moo fi xewoon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté wu. man xale bi magu papaam laa. magu papaam bon léegi bi affaire bi amee ñu woo ndonga booy nga six ans six ans rek day dootu am ci ren matt waaw moom la xaj bi matt ñu mhm. ko màttee fii ci buntu kër gi mhm. après papa ji daal ko jël yóbbu ko service dixième ñu ko yóbbu service ah, ne ko fi mu nekk ah, piqûre bi amul mhm. bon bi mu ne piqûre bi amul ñu indiwaat ko après bi ñu ko indee ci lañ ko tegtal euh, benn dëkk bu nekk côté Tivaouane ngaam bon bi ñu ko waxee foofu ñu daal dem ñu jox ko traitement bi mu topp traitement bi fii parce que def na ko une semaine di traité affaire bi affaire bi xaw a gëmm bon par la suite après ci la bàyyee noonu ñu defe ne wér na bon comme bi deuxième fois bi yaay ji daal dem yóbbuwaat ko service bi ñu ne ko kii jaragul a piqûre ndax il faut mu am 10 ans. pour piqûre bi door di mën a infecté. mais bi jour bi ko xaj bi màttee ci ci jour bi yan waxtu la ko xaj bi màtt est-ce que bi mu ko màttee léegi yóbbu ci jour bi ngeen ko yóbbu hôpital. waaw jour bi lañ dem régional. ay vers vingt vingt heures vingt la ko xaj bi màtt. waaw non boobu lañ ko yóbbu hôpital mais xaj bi mu ngi ko màtt fii ay vingt heures après ñu yóbbu ko hôpital régional. Mhm. ñu ko yóbbu hôpital régional après ñu envoyé nañ ko yóbbu service d'hygiène. voilà bi ñu demee saru dixième nag ci lañ ko wax ne ko piqûre bi amul fi mu nekk pour l'instant piqûre bi amul bon après ñu daal di tegtal ko foo xamee ne côté Tivaouane pour mu dem fa pour mu ñu faj ko ndax nee ñoom bu ñu jaxalee sax foofu la ñuy yóbbu pour mu faj ko ñu faj ko nekkoon ko bu ñëwee na raxas ak saabu ordinaire rek ñu ko raxas ak saabu ordinaire du def dara après nag ñu ñëw indi topp traitement yi ñu wax fee euh, mooy dëkk bi nekk après Tivaouane ñu topp traitement yi topp ko. ba dimanche daal la 23 la ko affaire bi yëngal dimanche ci guddi ko yëngalee ma mee ko yóbbu hôpital bi may dem. nan nan la ko yëngalee. affaire bi daal dafa jekk genre crise di crise waaw léegi bopp bi kenn du ko laal nag aussi léegi après ci la ma màtt màtt bi bi ma màttee ma yóbbu ko hôpital ñu daal ne nañ ko fi bàyyi ñu yóbbu ko après pédiatrie.

moom fan la gaañoo xale bi. hôpital régional. jot nañ ko faa waaw ah, jot nañ ko faa téye waaw jëndoon na ay piqûre antirage jëndoon na ñaari piqûre antirage mais mm, fekk mu fa nag mais papaam nee na benn bi lañ ko piqûre mais beneen bi piqûre ñu ko waaw ndax euh, ñoom daamel mel ni dañoo xamoon ni euh, ay butéel lañ ko samp rek waaw faj bi butéel rek lañ ko samp mais defuñ ko benn mouvement après nag dimanche lundi bi ci ay 23 heures mu ci la gaañu. Mhm. Euh, ndax yenn xam ngeen boroom xaj bi wala xaj bi xamu leen fan fan la. xamuñu ko nag euh, xaj bi bon xamuñu ko xaj bi daa romb nii doon dem doon daw. romb mais xamuñu ko ndax euh, ki ci yem. na xaritu papaam boo xamee ne ci la yem. mais moom daa defee ne xaj bi màttu ko. après nag bi mu xoolee loxo bi la gën a ko i xaj bi màtt na ko mais daw na ba fii mais xamul xaj bi fu mu aw xam nga fii daa am ñaari am na mën ngaa aw nii mën ngaa aw nii. mais ba léegi gisuñu xaj bi. def ngeen déclaration wala def leen. waaw ah, waaw def nañ déclaration service ñëw na fi waa élevage ñëw nañ fi aussi ñëpp ñëw nañ fi ba def constat bi ñoom ñëpp bon après euh, bàyyi noonu waa waa élevage bi ñu fi ñëwee 4 jours ci ginnaaw bi ñu fi ñëwee nee nañ nañ bàyyi bu ndox mi xëyee wàññiku dinañ fi ñëw xaj yi nekk ci koñ bi yëpp ñu ñu raafal leen posone leen waaw. parce que nit ñi dañ doon wax xale xale yi gisoon nañ xaj bi ba sotti nañ ko essence ba ko. waaw loolu de dégg naa ko nag man gisuma ko mais dégg naa ko am na daal koo xam ne nii mi ngi dëkkee côté Texas côté yoonu Seras nee na ma xaj bi daal euh, rey nañ ko mais man gisuma ko moom wax dëgg yàlla waaw. seen koñ bi dafay faral di bëri xaj wala. Ah, am xaj moom day am xaj. te mosu leen dox benn jéego pour seen sécurité ak sécurité xale yi. non non non non woo def. su ko def moom ndox. ban appel ngeen di lancé yéen ñi nga xamante ni jot ngeen ci ñàkk seen doom. Hmm. waaw di euh, comme li waa élevage wax rek ñëw ñu jëm ñu dimbale ndax xam nga am na loo xam ne ñoom ñoo ko sañ comme ñoom ñoo sañ euh, euh, rey xaj wala ñu jël ci ay matuwaay. ndax fu nekk ñi ko dëkkal boobu duggee ci kër gi ne da ngay indi xaj problème bon te xaj boobu màttul xale bi doo doo nekk ci yoon da ngay wàcc yoon léegi nag comme waa élevage ñoom ñoom la fi état teg pour ñu am droit loolu

wa ah, dess na ñaar fi nek le 15 la wara a wat ak le 22. ndax dañuy ragal li top xalé bi mu top la. effectivement voilà loolu lañuy ragal quoi loolu la mu wax mu ne ma daal bon il faut nga top traitement yi ndax comme dala màttoon mën na mën na la ko wàll. ñu ngi lay nuyu yow ñi nga xamanteni yow yaay maamu xalé bi jur yi xalé bi ñi ngi lay nuyu. noo ngi lay fay di leen sant di leen gërëm ah ñun nak suñu doom ñak nañu ko ndax xañ na dogalup sunu borom la waye li di lima leen di xamal moy yeen ginaaw da ngeen ci di dox ay ay fexe leen dugg ci koñ bi bu ngeen duggé ci koñ bi di ngeen gis xaji xaj bi ñu ne dañ ko att bañu ray ko tal ko pétrole bobu mom bu dëkkunu bi ñu dëkkal ngeen wara set ay metukaay ngeen dem ci bu deer ngeen am di ngeen koy def metukaay ngeen dem ci ñu ngeen nuko ndax nun sañu nu ne ki am xaj sañu nu ne ki amut xaj waye xaji mom bu ngoon joté bu timis joté kenn dutu yoni sa dom fi ne bo bu timis joté bo génné di nga tassé kab xaji mu joggé ni aw ni amna kër go ni fi mu nek tay bo fa awan romb fa rek xaji bau lay baw ci kaw té bu bu wàccee saté saté miir bi koku nak yéna nu ci wara dimbali dimbal ni nak ci yéen lañ koy yaakar ginnaaw nun ñak nañ suñu dom dimbal leen nu ci loolu ndax ñi des yalla dimbali leen ande loolu la leen di ñaan